te musal ko ci noonu bu nëbbu ak noonu bu feeñ gannaaw bu loolu jàllee nag ñuy santaat suñu borom subhanahu wa taala baax a baax comme noonu ñu leen ko waxee rek seen émission bi nga xam ne mooy émission maanaam jataayu diine jataayu diine nag euh, danañ ci faral di dalal boroom xam-xam yu bare bare bare fépp fu fi waay nekk rek te dégg nga moom suñu borom dogal maanaam mu bëgg ñu dalal ko ci jataay bi rek incha allah des na ci moom su ko defee ñaareel bayit a na laaj ak tontu ci wàllu diine maanaam nga xam ne doomu aadama bi lépp du ko riire ci diineem rek bu ko laajee ndem soob na suñu borom laa birante ci bu baax a baax ndax na nasiyan maanaam diine moom laa birante rek lay jariñ te sëriñ bi dafa wax ne man kaana jaahilan bi di walam yas alfa abada wasalam lu waay réere ci say farata te laajoo ko ba xam ko ala nga sa bopp te doxeel mu refet kese maanaam diine moom jàng rek lay doon bari waa na ci lu baree bare loo xam ne da ngay jàpp na noona la te fekk du waa bari na loo jàpp na du na te fekk mu doon noona loolu diine da koy def lu baax a baax a baax bari waa na ci loo xam ne nag aada lay doon maanaam du diine waa bari na ci loo xam ne diine lay doon maanaam yu baree bare bare doomu aadama yi nag danañ ko faral di def ci wàllu aada nga xam ne aada moom boo ko peese woon ak diine dañuy wax ne lu ci ëpp maanaam aada ji mooy wat diine ji maanaam daal nga xam ne ne fi ne tey jii boo xoolee ci weeru koor bi fi ne tey jii bu ñuy naafi la maanaam jàkk yi day fees dell ci maanaam première beeg maanaam ba ci cinquième suur bu juróomi fan yi maanaam jàkk yeeg jumaa yi day fees dell ci wàllu naafile yi te ñu ci bare bari bari ñoo ñe di naafile ji mën nañ la wax ne la boo demee sax julliwun tàkkusaan mbaa tisbaar te tàkkusaan jooju moo gën fan fanweeri fan yoo naafile te julliwoo tàkkusaan wala tisbaar nga xam ne daal da ngay bàyyi farata dem ci sunna bu boobaa nag ñàkk xam mooy li koy waral kon la gën rek mooy bu dee jigéen mu mattale maanaam waxtu yu juróom yi bu dee góor mu mattale waxtu yu juróom yi maanaam sa diine daal mayu la nga julli waxtu wi bàyyi wii julli suba bàyyi tes tisbaar julli taakusaan bàyyi timis julli gee bàyyi yu nu mel maanam juróomi waxtu yi danga koy fonk bu baax a baax a baax a baax su ko defee loolu bokk na ci li nga xam ne mooy diine doomu aadama bi su ko defee ñu baree baree bari léeg-léeg ay da ngay gis ñu wax ne bu ñuy naafile dañ koy baral baral goo xam daanaka du yam ak li nga xam ne mooy euh, julli farata te naafila ni nga koy jullee noonu ngay jullee li nga xam ne mooy waxtu yi farata yi ndax it ñu bare bare bu ñuy naafila maanaam bu ñu siggee daanaka bala ñoo taxaw jonn sax dañuy daal di gaaw euh, sëggaat bu fekkee dañuy sujootit euh, buñ bala ñoo egsi ci suuf rek nga xam ne bala ñoo toog dañuy daal di gaaw daal di defaat li nga xam ne dégg maam moo di euh, sujootaat te bu fekkee ne loolu ay farata la ci sunu sieg maanaam waxtu yi farata yi lépp farata la ca maanaam dal booy naafila ak buy julli farata ñoo ca yem dangaa war a def dégg bu fekkee dangaa taxaw nga bañ a wengulu nga jub xocc boo taxawee ak jub xocc boo toogee loolu bokk na ci li nga xam ne mooy faratay julli yi ak it boo rukon nga jàpp di nga mam ci say wum bu baax maanaam su ko defee nga siggi taxaw ba jub xocc loolu bokk na ci faratay julli yi ak it boo sujjootee maanaam euh, nga egg suuf bu baax sujjoot ba egg maanaam toogaat ba yegg ba sa cër yëpp wàccaat nga dooroo sujjootaat waaye bu fekkee danga ko barantu rek boole ñaari sujjóot yi bu boobaa moo xam farata la moo xam julli sunna la euh, julli ga yàqu na su ko defee incha allah ñu fa yéene ànd ak yéen ci émission bi ci 88 628 19 05 88 628 19 05 incha allah su ko defee képp ku fëgg rek incha allah ki nga xam ne moo di Soxna Yande Sène dana la dugal ci li nga xam ne mooy jataay bi su ko defee su fekkee dafa am looy laaj nga dugg laaj ko su fekkee dafa am looy leeral it nga dugg leeral ko ndaxit it addiinu nasiha diini moom laabirante rek lay jëriñ te alxuraanul karim li ko tàmbale bàqara ba naa si ay leeral la yu bare bare bare yoo xam ne lenn li yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam fekke na ko waaye nag lenn li fekkewu ko lenn li ëllëg lay doon kon yomal euh, alquranul karim bawul dara nga xam ne daal li nga xam ne bi yonente bi sallallahu taala alayhi wa ñëwagul woon lu booba la xewoon mu di ko ko nettali ci alquranul karim ak li nga xam ne jamonoom la bi nga xam ne nekk na fi maanaam aaya yi di wàcc di wax ci ay jamonoom maanaam ak li nga xam ne mooy ëllëg yomal xiyaam alquran di ci wax nga xam ne kon ñetti jataay alquran wax na ca muy avant yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam di gane jamono ak bi mu gane jamono ak it maanaam xam euh, bu ëllëgee yow mal xiyaam la fay xew ak yu nu mel nga xam ne alxuraan wax na ci ba maanaam ñi nga xam ne ñooy tàbbi euh, maanaam àjjana la ñuy wax ak ñi nga xam ne ñooy tàbbi sawara la ñuy wax ak ñi nga xam ne ñooy tàbbi laxraaf la ñuy wax ñetti tàbbikaay yi xaali diine fiyaa nag maanaam àjjana ak sawara moom xaali diine fiyaa am na ca muy sax sawara dàkk bañati caa génn am na sax àjjana dàkkit bañati caa am na laxraaf nag moom amul xaali diine fiyaa laxraaf moom dafay ràpp ndax dafa nekk ci diggante àjjana ak sawara nga ne waa laxraaf moom igun euh, ci waa àjjana dëgg-dëgg waaye nag téewul maanaam ñoo gën fuuf waa sawara ndax ku la maa nadd jat julo doxum badal naawum juloo dan sawara moom tàng na tàngin woo xam ne tar tarin woo xam ne sunu borom subhanahu wa taala nee na mboolem ña ciy dugg suma laa yamutu fii xaa wala yéex yaa maanaam duñ dund te dee kon nag lu mata moytu la sunu borom nag wàccoo na ak jaamam yi wàccoo na ak doomu aadama yi ndax ki nga xam la dégg maam ëllëg la fay xew na la képp ku tontu lii boo léegi da nga jàll ku tontu lii boo liggéey doo jàll ca dëgg-dëgg la gën rek mooy góorgóorlu sa kemt lay kàttan ba boo liggéey nga mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax te xam ne adduna nag in yaasa yusibkum wa yaati bi xalqin jadiid ne ba ma neexee borom ma jëli leen wér na bu baax a baax a baax ndax Sëriñ Tuubaa Xaadimu bi mu wàcceeb liggéey 1927 ñu ngi toll ci rek maanaam Sëriñ Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi mu wàccee ab liggéey ak léegi day daal di mat téeméeri kon boo xoolee dafa mel ne maanaam e, juróomi at daal moo tee boobaak léegi Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi mu wàccee liggéey léegi moom mat téeméeri at waaye boo xoolee ñi nga xam ne 1927 fekkoon na leen fii maanaam boo ko doon wër ci àdduna bi daanaka ñu néew a néew a néew a néew la ñoo la mën a wax ne la 1927 fekkoon na ma fi kon bu ñu duggee 2027 day mel ne raxasu na ba set wecc ñi fi nekk ñëpp ñu bees la ñu doon waaye bokkut ak ñi fi nekkoon 1927 kon loolu mooy wane ne àdduna moom jaar jàll yàlla rek la la sëriñ bi daan wax na fii la dëkkoon lii moo ko moomoon mujj fii lañ ko denc kon la ca gën mooy góorlu bu baax a baax a baax ci seen diggante ak sa borom di jaamu yàlla bu baax a baax a baax a nag maanaam bu moyoon lu ci bare bare ci wàllu soxna yu bare bare bare fi ni nii bu seen borom yi kër di jaamu yàlla ñoom duñ ca boole seen bopp te loolu it gënul maanaam eh, ndax it doomu aadama moom moo xam góor la moo xam jigéen de jaamu yàlla moom suñ borom subhanahu wa la ñëpp la ca tolloole amul daa war góor gi ba wàcc jigéen ji amul dafa war jëkkër ji wàcc jabar ji déedéet ni mu waree jëkkër ji noonu la war a jabar ji kon nag képp koo xam ne suñu borom dogal na ngay jigéen bu sa borom kër dee jaamu yàlla jaamu ko bu jaamul yàlla it jaamul yàlla ndax suñu borom leeral na ci alxuraanul karim kii nga xam ne mooy soxna sa Firawna li na di bon bon bon bon moom na maanaam soxna am dafa texe muy Asiya waaye nag ki nga xam maam mooy yonenteb yàlla nooxan ak yonenteb yàlla ki nga xam ne moo di euh, ndeysaan nooxan euh, ñoom euh, bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala na ak ki nga moo di lóot ñom ñaar ay yonenté lañ waaye seen ñaari soxna dañoo torox manam nga xana ay yonenté lañ xam nga doon soxna ci yonenté ba wol beuti ko torox ki doon soxna ci yéfer ba nopi téxé kon loolu li firdel mo yalla suñu borom mom ki def lu baax rek lay atté manam dal ina la la yudu ajrul musirin suñu borom neena man yalla seen borom day duma sank jëfi kuy rafetal kon nag rafetal am solo lool ma dama bi warna ci gur gur bu baax a baax fi ko suñu borom subhanahu wa taala de taala de wax ci alquran nak moy masalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين suñu borom nee na daal sama ñaari jaam yi nga xam ne ñu baax lañu te suñu borom comme na baax baax nga moom ca dëgg-dëgg kooka romb na baax bu baax a baax ndax it doomu aadama yi sax bari waa na ko ne wax dafa baax te fekk yàlla moom kooka baaxul ca moom waa nag tey suñu borom moo ne nooxan ak ki nga maam moo di lóot moom min xibaadinaa saalixay nii sama ñaari jaam yu baax lañ waaye nag biñ baaxee ñoom ñaar seen ñaari soxna yi waru leen nga daal la ñuy wax waxunu ko la ñuy def defuñu ko fa nu jëm jëmunu fa a ah, nee na sunu borom subhaanahu wa taala nee na ne leen la adduxulu naara rek maa daaxilin ah, dugg leen sawara ànd ak way dugg yi sawara nga ne ñoom ñaar texewun kii yoo xam ne dégg nga moom mooy ASC ah, mi nga xam ne fer xam mi gën a bon ci dégg nga maam way bon yi moo doonoon jëkkëram waaye téewu koo texee ndax na li waral bon gi bon dëgg dëgg dëgg Firawna da daan rendlu mboolem liir boo xam ne dégg nga moom judd na foofee jamono yi mu fi nekkoon nga ne na ay liir lu toll ci maanaam diir fukki at yoo xam ne mboolem gox ba adduna boobu jamono yi ñëpp fa nekk ndooloon ci dëkk ba ñëpp rek jépp jigéen ju ci masa toolu diggante rek comme nii ko euh, maanaam euh, président bi di defee euh, di def ay ay nday gox maanaam daal nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñooy nday gox yi nga xam ne da ngay nekk ci ab gox ñu daal lay tudde nday jaboot jaboot maanaam nga nekk ci euh, gox bi tudd ñu tudd la nday jaboot nday jaboot boobu nag moo daan contrôler jigéen ñi nga xam ne di nga maam dañoo tollu diggante bu fekkee da ngaa ëmb rek day bàyyi maanaam di la sermin boo amee doom bu dee góor a ñu daal di koy rendi bu ndeysaan bu dee jigéen ñu bàyyi mu dem su ko defee noonu lañ ko daan def su ko defee yu sàpp yoon ab naakum wa yestoona nga xam ne suñu borom subhanahu wa nee na firaw na moom da daan rendi doomi góor yu bàyyi fi doomi jigéen yi bañ ko defee nekk lu toll ci ay fukki at yooyu xamaan mi nga xam ne moo sësoon ci moom moom firaw na na moo ko ne kat euh, sunu euh, militaires yi soldat yi daal ñi ngi tàmbalee màggat nu bëggoon rek léegi nga def benn xalaat mooy léegi at mi suñ ci reyee góor ñi at ma ca toppaat nañu euh, bàyyi maanaam may ñi nga xam ne ñoo ci toppaatal mi ngi mel ne daal 2022 bu fekkee dañoo rey mboolem lu judd di ab liir bu góor rek ñu rey ko waa daal 2023 moom ku ci judd boo dee góor dañ lay bàyyi nga jàll kenn du la rey su ko dee daal ñuy jënal at moom mi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala ko la ka waraloon rey ga nag mooy wan yonent yàlla Moussa Moussa mi nga xam moo waraloon rey gi firaaw na di rey Moussa moomu atum rey ma la juddoo moo ta nga xam yàlla moom lim nar kenn mënu ca dara ndax ki taxoon firaaw na di rayaatee mooy mu yonent yàlla Moussa te Moussa at mi nga xam ne ci lañ war a raye ci la juddu euh, ndeysaan nga xam ne euh, bi ko yaayam juree da ko daal di jël def ko ci genn kees sànni ko ci li nga xam ne mooy tefesu géej gi bi mu ko ci sànni ndeysaan euh, maanaam kees gi di fii ci kaw ndox mi ndeysaan ci la ay gars yu jóge kër firaw na yoroon seen i fas doon wëggi ak a sànq seen i fas ci leen gis kees gi rek ndeysaan daal di koy jël bi ñu ko jëlee ubbi mu di liir bu rafet rafet ndeysaan ci lañ ko andi nag ci firaw na biñ ko ëndee ci firawna nak firawna sax naran na ray rey sun borom nee na wa khaytu alayka mahabbatan minni walitusna ala ayni istamsi ukhtuka fatakhulu hal hala adullukum ala man yakfuluhu manam dal sun borom subhanahu wa taala nee yow man ma sànni ci xol firawna manam ak cofeel ndaysan mu bëgg la lol ba mu ci sago ndaysan su ko it ngir rek mo man laa delloowaat eh, ca sa yaay yow ki nga xam yaay yonent yalla musa ndaysan musa eh, nga xam amna xewal gu reey reey ndax it ki nga xam ne mooy ASC moom nga xam moo doonoon soxna Firawna nga xam ne sëy nañ lu yàgg yàgg yàgg amunu doom euh, ndax it ASC bëggul woon firaw na waa baayam moo ko forcé may ko ki nga xam ne moo di Firawna mu ñaan suñu borom subhanahu wa taala bañ a am ak doom ki nga xam ne mooy euh, na moo tax biñ indee yonent yàlla Moussa ndax mu mooy maa un ndox saa mooy sajaratun garab diggante garab yeeg ndox mi yooyu nu ko fore moo tax ñu tudde ko Muusa muy sajaratun ak maa un muy sajaratun euh, mooy saa gi muu gi mooy maa un su ko defee nag euh, Muusa bi nga xam ne firaw na jël nañ ko indil ko ko da koo nar naree sax waa nag soxna si moo ko ne tee nga na koo tee ma koo may mu doon sama doom ndax it comme yaa maak yow sëy nañ lu yàgg yàgg amuñu doom teeg maa dimbali rek nga may ma ko mu ne ko ah man day damay bañ xam ne moom lañ ma wax na ma dana daana sama nguur gi ba tax may rey liiri góor yi waaye nag yàlla suñu borom dogal ndeysaan faru ko rey bu wax nañ sax yonent yàlla Moussa bi benn bis firaw na jaaxle na ci moom banar koo rey waaye nag euh, bi nga xam ne suñu boroom dogal na mu teg aw xal euh, teg am nen daan rek léegi su fekkee jël na xal yu moom ma xam ne gone la waaye su fekkee jël na nen bi ma xam ne mag la ndeysaan bi nga xam ne mi ngi waaj a jël euh, nen bi rek dafa mel ne jibril dafa fi loxo mu jël xal wi daal di koy seex moo waral sax yonante yàlla Moussa dafa dotomon nga xam ne làmmiñ wi mënut wana a leeral nga xam ne tey bu fekkoon dafa bëgg wax damay dem ta damay eh, jem lay wax nga xam ne munta làmmiñ wi daal munta leeral moo tax sax wax bu ma di wax moom Moussa day wax rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nga xam ne daal firaw sax daana ko tooñ naan ko yow nga xam ne daanaka xaw tuuti sax doo mën a wax sa wax ji sax leerul lamiñ woowee xalu sa sawara moo ko lakkoon Moussa nag ndeysaan nekk kër Firawna euh, nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañoo rayoon seen i doom ñoom ñëpp ñu bare bare bare am nañ am soow dëkk ba daal moom booy wut jigéen ju am soow moom bari na fa lool ndax ñin ray seen doomi góor ñëpp ndeysaan ñu war a na nàmpal te ray nañ seeni doom ñu daal di ñëw kër Firawna ndeysaan pour nàmpal si Moussa su ko defee nag bi nga xamé ñew nañ kër firawna euh, su ko defé nampal ngir nampal ci Moussa kuñ jox wén wi rek Moussa day lank ndaysan du nango laal wénu koka ñu diko def diko def diko def ndaysan ba yaay ki nga xamné mo yaay Moussa euh, yoni domam ju jigen ci nga xamné moy magi Moussa ci kër firawna nako bo démé rek dag may rajul nga gëstu ndank ndank rek fexé ba bul feñ manam euh, ba gisal ma sama dom ja bu mu exé rek daal di koy gis daana wa ndax duma len tektel ben jigen bo xamné euh dana ko man mën a nàmpal euh, ko defee nag ndeysaan euh, dana ko mën a nàmpal euh, foofu sax wax nañ ne firaw na ne a ne yow loola xamal loolu mun na ko mën da damaa jàpp ne rek ñooñu ñu baax lañ ñoo xam ne dina ko mën a nàmpal ba suñu borom a wa taala dogalee ndeysaan ñu woo yonent yaay Muusa bi mu egsee rek ndeysaan da koo joxo ween wi rek mu daal di nàmpo bam nampee nag ah firaw mais nag nangu feeñu na sama doom la euh, nangu la feeñu euh, kii nga xam ne dégg nga ma mooy Moussa ne sama doom la waa daal day wane na rek man daal mën naa koo nàmpal bi nga xamee ne sunu borom dogal na ndeysaan comme Moussa nangu naa nàmp weenu yaay ji rek ah léegi nag kon alhamdulilah rabbil alamin ba loolu amee nag euh, moom Moussa yaay ji daan kon léegi de li am mooy man kon dañu may fay su ko defee nag mu ki nga xam moo di. Firawna ne ko léegi da ngay wax kon euh, léegi da nga koy nàmpal ñu di la fay parweer nga xam ne tey jii mi ngi mel ne tey jii rek bu doon ci jamono ji toll la mi ne tey jii ñu ne ko weer trois cent mille francs lañ lay fay nga nàmpalal nu ko fukki weer ak ñaar xam nga weer wu ne trois cent mille day saan nga nàmpalal ko fukki weer ak ñaar mu d'accord ah léegi ñu daal di jël xaaju xaalis eh, loolu jox ko mi ngi mel ne tey nu kontal toll ak quatre millions mbaa trois millions jox ko yaay Moussa mu boole nàmpal doomam ndeysaan ak ñu di ko fay par weer nga xam ne yàlla moom lim la def loo boo ko defee rek da nga daal di noppaloo bi nga xamee ne Moussa daal di ko yóbbu këram di nàmpal doomam ñu di ko fay par weer ndeysaan ndax def na leen man mënumaa toog kër Firawna di nàmpal gone gi li may man daal mooy yóbbu ko sama kër di ko fa nàmpal ndax damaa yor borom kër te damay sëy ñu daana ko amul benn problème ndeysaan mu yóbbu ko foofu di ko nàmpal ñu di ko fay par weer ba mu ko nàmpalee ba Moussa fer ndeysaan am na ci jamono yoo xam ne sax suñu borom nee na bu fekkoon ne takkuma xolub eh, ki nga xam ne mooy eh, yaay Moussa dina ko nettali waaye nag ko woon a nettali kenn kenn kenn kenn kenn yàlla dafa takk kii bi ba nga xam ne mënu koo nettali benn doomu ndax doomu yi euh, boo nettalee rek ñu nettaliwaat ko fi na bari waa na koo xam ne da koy nettali sab secret ne ko kat Euh, lii kat yow dong laa ko wax waxuma ko kenn yow rek laa ko wax kooka it waxaat ko keneen na ko yow dong laa ko wax kooka waxaat ko keneen na yow rek laa ko wax su ko defee day mujj yow laa ko wax kese kese yooyu day mujj ba egg ci ay téeméeri doomu aadama man koo daal di yëg mu far siiw moo tax yaay Moussa mu wane nettali xissa beeg affaire bi ni mu demee ndax sunu borom moo ko kal ba mënul koo waaye nag béggoon na bégg boo xam ndeysaan ndax sunu borom moo ko noonu danaa ko delloo si ci say loxo su nga fara jax naa ko yahdimuka kayta xaraynuha wala tansan waxatata nafsan fa najanaka minal xammi o fatanaka fotonan fa labista sidina fi an lil madiyana ndeysaan bi nga xamee ne Moussa sunu borom dogal na yaayam nampal ko ba mu fer ndeysaan mu daal di koy yutaat eh, jabari Firawna ja ndax comme da ko ne woon nampalal ma sama doom ji nga xam kon yaayu Moussa mooy yaayam waaye nag nangu koo feeñu ah ki ko eh, yaayoo mooy eh, jabari Firawna bi nga xamee ne keroog eh, yaayu Moussa ndeysaan mi ngi delloo si Moussa ci jabari Firawna ji keroog bernde yu ne yaayum ndeysaan jabari na ji defal na ko yaayu Moussa ji ci wàllu xéewal mi mën a tëj rek jabari président tey. nga ne député yeeg ministre yeeg mbooleem ndeysaan moromi jigéenam yi rek kenn ku ci ne andi nga say cadeau. nga indaaleel kooko ndax sa ndeysaan kër yaay Moussa ba muy ñibbiwaat ay gileem la sëf ak i bagaas ndax bari la lool te xam ne kon kooku adduna moom jàkk na ndax it di nàmpal sa doom ñu fay la fay gu tool noonu ba noppi wëlbatiku neexal la neexal yu tool noonu euh, ca dëgg-dëgg taw fexe na léegi nag Moussa nekk foofii ca kër fa nefa fa ba xaw a dëgër tuuti ba doon waxambaane wu xaw a dëgër ndeysaan benn bis nag euh, nga xam ne Firawna da koo fonkoon fonk koo xam ne sax da ko wutal leen keesug boppam Moussa am na ay ndijaayam yoo xam ne ay bokk yaayam lan woon ne ci biir kër Firawna Firawna di leen liggéeyloo liggéey bu méttee méttee métti waaye nag Moussa pour mu teggil leen li nga xam ne mooy liggéey bi ndeysaan ndànk ndànk ren def day def def daal bu ñu liggéey ba une heure na wàcc maanaam dallu ba trois heures ñu continuer waat ba cinq ñu wàcc te bu njëkk moom avant Moussa di fa ñëw ndeysaan dañ daan liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon amul woon noppaloo kon nag secret boobu defal na leen ko ndax ñoom xam nañ ni kii seenub jarbaat la moom it xam ne ni ñii ay ndijaayam lan waaye nag kenn du leeral ndeysaan ba benn bis rek euh, Moussa euh, bàyyi ban añ ba noppi rek euh, heure boobu xam ne nit ñaa ngi dallu loolu lañ tuddee sest maanaam nit ñi bun añee bay nelaw moo tax sa heure yooyu sax alxuraan day tere ku koy seeti nit maanaam avant nuy julli fajar day bañ ku koy seeti doomu adama ak it bu nu añee ba noppi day bañ ku koy seeti doomu aadama ak it bu nu reeree ba noppi ñetti heures yi daal te dëgg-dëgg koy dox jàmm ko ne dañ la koy tere ndax it heure dallu la mooy xawra salaasu xawraatin ñetti awra la yoo xam ne maanaam nit ki balaa julli fajar kooku kuy dox jàmm waroo faa teew bu fekkee dafa añ ba noppi noonu bu reeree ba noppi noonu kon nag ñetti euh, heure yooyu heure futteeku la yoo xam ne nit ki da cee war a féexlu dallu ca euh, ca kaw ca kanam bi loolu amee nag kon yéen a ngi ci rajo Baol Média maanaam comme ni nga ko wax rek rajo Baol Média 88 euh, point 5 seen bokk seen xarit Mass Guèye ci seen émission jataayu diine mais nag am na laaj ak tontu ci wàllu diine comme ni ñu koy waxee rek euh, lépp lu ci waaye bëgg laaj ci lu jëm ci diine bi bu ko laajee incha allah ndax sëñ Seydina ju biis rek lañ ko doon àndal incha allah waa tey nag dafa teewul waaw daal bu ko yàlla doolee léeg-léegaat ñu daal ci boromi xam-xam euh, su ko defee ànd ko génn rek ci wàllu léggéey bi lépp ngir liggéeyal lislaam ak euh, la askan wi kon nag képp ku ci am loo xam ne rek am na lu muy leeral wala lu muy leerlu su duggee ci 88 628 88 19 05 dees na ko tontu ndem soob na yàlla sunu borom euh, bu fekkee lu jëm ci diine la su ko defee it ndeysaan ki nga xam ne mooy Moussa bi nga xamee ne génn na di doxantu ci dëkk bi euh, dajeek ñaar ñuy xuloo ñaar ñooñu doon xuloo nag kenn ki mbokk la ci euh, Moussa waa kenn ki mbokk la ci Firawna bi nga xamee ne nag mbokkum Firawna mi nag moo moo ëpp doole moom mooy diriger. moom nag moo doon euh, taxanloo ki nga xam ne mooy mbokkum yonante yàlla Moussa mi euh, bi nga xam ne sunu borom dogal na nag mu di ko taxanloo nguur si ne ko damaa sonn léegi nag nguur Firawna si di ko forcé ci la ko Moussa ko comme moom dafa sonn te koo bàyyi ba ëllëg nguur si forcé lànk fi ko Moussa di fiqi rek ndeysaan di dox seen diggante ñu ñoom ñaar rek loxo bi dal euh, loxo Moussa bi daal ki nga xam ne mooy mbokkum Firawna mi mu daal di daanu dee muy fa wakasoo Muusa fa xadaa xaali yi ndeysaan xaali yi mawtu maanaam suñu borom nee na naka mu ko kurfañ bi daal rek ndeysaan mu daal di dee moom waaja ba mu dee nag kii xam ne mooy mbokkum Muusa mi daal di daw Muusa it daal di daw ndeysaan bi nga xam ne Muusa daw na nag euh, daan na ciel nag ba benn bis muy contrôler ndànk par ndànk firaw na nag bi mu yëgee ne kii dafa dee te xalaat na ne dañ ko rey da doon wax nag képp ko xam lu ko rey soo ma ko waxee loo bëgg rek ci xaalis ma jox la ko nga xam ne moom comme président la moom firaw na xaalis moom bàyyi la moom mu daan képp ko wax li ko rey rek danaa la neexal neexal boo xam ne li nga bëgg rek lay doon ah gars yi di surveiller ndànk-ndànk di wër ndànk-ndànk ba benn bis rek xam nga baadoo la moom baadoo la rek lay doon mbokkum uh, ki nga xam ne moo yonente bi yàlla Moussa Moussa ci boppam mbokkum moom nga xam ne moo doon xuloo ba tax mu di ko àtte ba farkee dee ca Moussa génnaat dajewaat ak mbokk mu muy xuloowaat ak beneen waay maanaam di xuloowaat ak keneen ndeysaan ah ba muy xuloowaat ak keneen kooke mu doon xuloo nag Moussa ne ko ay diw baal xuloo diw baal xuloo nguur si daal di arrière na ko yow yow daal Moussa da nga fay bëgg a nekk daal di jabbaaran maanaam daal kàccoor boo xam ne daal rayaate rek mu nga mooy sa liggéey nii nga defoon ba ray diw keroog a ah, naka ma wax loolu rek ndeysaan ah, waajam dañu xulul daal di daw comme na moom nee na képp ku xam li ko rey rek boo dikkee dinaa la jox lu bari ah ab xuloo ko xeex moom ay millions yi million millions yi nga nar a am moo ko gën waa ji daal fay bàyyi xuloo ba moom daaw dem ca Firawna ba mu demee ci Firawna xamal ko ne nag naka ah kat euh, ndeketi diw ma dee woon moo ko rey Moussa ko rey ndeysaan Moussa daal di jaaxle ndeysaan dajeeg benn waaye rek mu ne ko ba nga ko daw génn dëkk bi ndax firaw na ngi lay wërlu yëg na ne yaa rey waaja ndeysaan ci la Moussa di daw génn dëkk ba dem Madiyaana Madiyaana yi soin bu moo fa nekkoon xam naa moo tax sax euh, Madiyaana gii ci Touba maanaam sëriñ soin bu mbàkkeem sëriñ Touba Xaadim Rasuul tuddee ko Madiyaana ndax soin bu moo nekkoon Madiyaana kon madiana ba tey sëñ sooy bu sëriñ Touba nekkaat Madiyaana muy sooy bu Madiyaana kon Madiyaana googa fa la Moussa rawe ji woon ndeysaan Moussa nag bi mu demee ca euh, fi nga xam ne moo di Madiyaana euh, ci yonent yàlla sooy bu euh, ba mu daataan egg daje naag ñaari doomi jigéen ki nga xam ne moo di sooy bu ndeysaan ñuy ñëw ca teen bi nga xam ne fi leen di wëggee seen xar yeeg bëy yi ndeysaan bi nga xam ne sunu borom dogal na nag dikk ci teen bi fekk góor ñi di wëgg jigéen ñi moom euh, ñaari doomi jigéen la soin bu am Euh, ñu daal di euh, toog ci ker gi ndeysaan di xaar góor ñi wëgg buñ noppee ñoom ñu door a wëgg ndax ñoom it duñ jaxasoo euh, góor ñi di cappax capax yi root ak a coowaloo wuteeg lu bare bare bare ci jigéeni Sénégal nga xam ne lu capax-capax ja gën a bari mbooloo ma gën a bari ñu gën a necce ci biir di réll réll ndax ñaar ñooñu bu fekkoon dañoo ne ci biir góor ñi di animé góor ñi da nga ci gis ko root ba noppi sax te du bëgg a dem ndax waxi jigéen ña ñu bare bare bare bare baanaam danañ yàgg àgg ci teen ba danañ fa am waxtu yo xane bu doon jigeen ña duñ ko fa am wa nak suñu borom dogal ñom dañu dem ci kër ga rek tok pour xaar goor ñi wëgg ba nopi bi nga xamé ne loolu am na ñu wëgg ba nopi ñom goor ñi daal di ubaat teen ba Musa fekk leen fofu ne leen yeen lu bëgg ñu ne daan ñu ñu ne ñun daal wa abona saykhun kabirun fa law ma suma tawalee man daal non sunu baay danoo bëgg mandal màndal sunu jur gi waaye sunu baay dafa doon saykhun kabir mag la mo xane daal ko magata la nun nak nokoy wëggal ndeysaan ci la Moussa dikk ubbi teen bi wëggal leen xar yeeg bëy yi ba ñu màndi ndeysaan mu daal di leen di rootal seeni paan ñu yanu dem bañ eggee nag lañ ko nettali seen bàyyi daana ko cey bàyyi gis na jàmbaar joo xam ne lii yéeme na ndax li ko tax a yéeme mooy moonu wëggal suñ jur gi te jur gi kat nun buñ ko masaan wëgg dafa mel ne daanañ ko ci lu toll ak waxtu te moom bi mu koy wëgg daanaka ci ay 20 minutes 30 minutes rek la ko wëgg moom jur gi yépp daal di màndi te bàyyi dal kooku jàmbaar la ndeysaan seen bàyyi ne leen demal ngeen wool ma ko ndeysaan bi soxna si dikkee sax ne ko kaay yuy sama bàyyi ndax daf laa bëgg a fay daf ko ne maanaam dangay ngay bàyyi ma jiitu la nga topp sama gannaaw waaye su ma waree jàdd rek da ngay jël aw xeer nga sànni ko ca côté booba su waree ma mën a jàddee foofa ndeysaan nga xam ne euh, noonu la ko Moussa def ndax Moussa it bëggul jigéen ji jiitu ko mu topp ca gannaawam di ko seetloo ko seetantal waaye def ne naa jiitu moom mu topp sama gannaaw su ko defee bañ a wax maanaam nga xam ne daal day sànni côté boobu rek ma jàdd ba léegi ca kër gi waaye dal bi ñu yeggee soxna si ne ko bàyyi de waxuma la kii euh, jàmbaare gi waaye maandu gi damaa jaaxal ndax euh, nanguwut sax ma féete ko kanam maanaam ma ne ca kanamam waaye nag dafa bëgg mu jiitu man ma topp ci ginnaawam nga xam ne nangu maa xool euh, ca ca ca gannaawam laa nekkoon ba ni ñu yegsee kon daal jàmbaar la ba noppi maandu naa jàmbaar la maandu na léegi nag ci la koy soñ bu nekkoo kon day yow xam naa ne dama bëggoon ma jël la su ko defee nga sàmmal ma sama jur gi nga sàmmal ma leen daal su ko defee ba la neexee saamal ma juróom-ñetti at mbaa fukki loo ci def baax na ndeysaan ah Moussa na ko waaw moom daal baax na incha allah léegi nag bi loolu biñ diggee sàmm gi ba noppi mën na ko nag léegi nag euh, dama bëgg sama ñaari doomi jigéen yi nga tànn ci koo ci bëgg ma may la ko su ko defee ñu dugal ko ci ndeysaan nga xam ne daa taar tànn gone yi euh, soin bu yooyu ñaari gone yooyu nga xam ne ñaari jigéen ñi nga xam ne moom la soin bu am mu tànn ca kenn ka takk ko ba mu ko takkee nag ndeysaan am na fa ak njaboot ak soxna soosu ndeysaan euh, sunu borom dogal nag keroog bi nga xamee ne euh, juróom-ñetti at yi nga xam ne mat na sëkk moom ko doon sàmm mat na mooy juróom-ñetti at yi manqué ay weer yi sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul am ci tukki bi rek ndeysaan Muusaa it saamal euh, soin bi juróom-ñetteet yu mat euh, sëkk bi nga xamee ne ne ko bu ma neexee ma ma matal ko fukk euh, bi nga xamee ne sàmm na ba soin bu gërëm ko sant ko gërëm ko mu matal ci la de day day delluwaat ca dëkk na ba fa nga xam ne fa la raye woon nit ka ba tax mu daw ndax it léegi dëgër na bi nga xam ne mu soin bu yónni na doomam ji jigéen dina ko daal yat wa ndax am na benn yat boo xam ne dénkoon nañ ko soin bu fekk boobu malaaka Jibril moo fa ñëwoon jox ko aw yat ne ko denceel ma ko xam naa ne boobu doomu aadama la soppee euh, jëmmi doomu aadama la woon booba mu dikk dénk ko yat wi bi mu ko dénk yat wi nag keroog bi nga xam ne soin bu mi ngi gërëm yonent Yàlla Moussa la ne su doomam ji demal jox ma sama yatu bopp waxuma la ma dénkoon sama yatu bopp waa ba mu demee ndeysaan di xool daal di jël yat wi nga xam ne ndeysaan mooy yatu euh, wi ko euh, malaaka mi dénkoon muy Jibril mu indi ko baa am ne ko waxuma la yat wi wàcca des laa la wax mu dem teg woowa jëlaat woowa waneen muy moom ba léegi mu ne ko kon daal demal loolu la yàlla dogal Moussa nag bi nga xamee ne mi mi ngi dem ci guddi gi bi mu sonnee am na yoon wu mu jàdd woo xam ne jaan ju bona bona bona bona bon joo xam ne day fàdd xar yeeg lu mu jot rek da koy modd rey ko ndeysaan Moussa nag bi muy gam-gam di nelaw foofu ci zële euh, bi yoon bi rek di nelaw ci la yeewu gis yat wi xonq cur ak deret mu xam ne yat wi du yatu kese yat woowee nag euh, moom la yonent yàlla Moussa yoroon ba suñ borom na ko hee yow Moussa lu ne ci sa loxoom wa maa tilka lan lan moo ci sa loxo bi mu ne ko lii de xasaaya sama yat la atawakkalu alayhaa wa a'uuzu bihaa alaa ganami maanaam daal euh, yat la woo xam ne dama ci sàmmi sama jur gi ba noppi dama ci euh, gësëm ak yeneen daal woo ma aari ba uxuraa ak yeneen mbir yoo xam ne yat wi dama ko ciy def suñu borom na ko sànnil yat wi ndeysaan Moussa sànni yat wi rek muy balaw balaw yi doon jaan Moussa daw bi mu dawee rek ndeysaan suñu borom na ko hee taxawal ndeysaan Moussa taxaw mun ko jëlaatal yat wi muusaa jël yat wi rek mu doonaat aw yat moo tax te loolu ci digg àll bu lëndëma lëndëm la booboo xam ne taraay bi foo ko takk paase na ko te kon loolu yéeme na yéeme goo xam ne foo ko takk passé na ko ci euh, jàlloore sunu borom bi subhaana wa taala ci yonent yàlla Moussa kon nag euh, ñuy santaat bu baax a baax a baax baax ci sa boobu nga xam ne euh, Moussa nag bi nga xam ne borom dogal na loolu am mu nar a daw waaye fekk na booba dafa séen leer leer boo xam ne dafa jàpp ne aw sawara la mu xam naa naa dem bu fekkee ne daal aw sawara la ma man ci tibb xal woo xam ne dinañ ci mën a jaaru su fekkee do do euh, du sawara it ma ban fa gis ko ma mana tektal tegtal yoon wi may jaar ndax dal xamatuma fu ma yaw fa bam ñewé nak la ko sul borom nako ana rabbuka man sa borom yow yaang ci muqaddisi tuwa yaang ci sel kon nak na layka innaka bil wadi muqaddisi tuwa simil sa dal yow musa ndax yaang ci xuru sel loolu mo waral nak barabi sel yi lu ci ëpp lu ci bare bari doomu aadama yu bare bari wax dëgg yàlla bu ñuy barkeelu dañuy def tànkop neen duñ fa nangoo soli ngir la koy waral mooy barab bu laab boobu noonu moo waral sun borom ne kii nga mooy Moussa simil sa dàll yi ba mu simee dàll yi nag ndeysaan mu ne ko maay sa borom di wax ak moom nga xam Moussa yaram wépp den riir yonent yàlla Moussa rek la yàlla sun borom ci wa taala mayoon nag dama ne mu a xaa maanaam daal bi wa bi kalimike Moussa maanaam wax directement nga ne du du doxale malaka ci diggante bi koku yonante yalla Moussa rek la ko sun borom subhanahu wa taala mayon. ca bobé nak Moussa bim jaxlé ba jaxlé ci jamono yoy ci la daal di nak ndaysan sun borom subhanahu wa taala wax ak mom na nako demal ca firxaw nga wax ak mom demal ca firxaw nga wax ak mom ci la ko ay sama borom subhanahu wa taala dama ragal buma démé demee ca firxaw na mu ray ma ndax man kat bama fay dama rayon nit ma bëggoon nag suma borom subhanahu wa taala nga may ma rek Haaruna mi nga xam ne sama mbokk la nga dimbali ma yabal ko defal ma ko ab yonante kon euh, Haaruna ab yonante la woon waaye yonanteeg Haaruna ki nga xam ne moo yonante yàlla Moussa moo ko demandé mooy moo ko ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu may moom mu def mu def ki nga xam ne mooy Haaruna ab yonante ah ndeysaan ndax euh, euh, mu ne ko sunu borom subhanahu dal defal ma Haaruna mi mii sama mbokk isdud bi azri wa azri ku fi amri kanu sabeka kasira wa naskuroka kasira innaka kunta bina basira ba ci la su borom subhanahu wa taala nag yabal Haaruna ndeysaan mu dajee yonante yàlla Muusa ci diggaale bi ndeysaan mu ne leen ashaba ila firhawna fa xoolaa loxo xawlan layyina dem leen ca firawna yéen ñaar bu ngeen demee ngeen waxtaan ak na ngeen leeralal ko ndax Firawna it ku réew la ku réer la ku beew la bu ngeen demee nag na ngeen wax ak moom wax ju nooy bu leen ko ñàkkee teggin moo tax sax ñu bare bari ci gaa yi wolofal nga dégg ngay wax ak benn waay mu ne la wax dëgg yàlla nag waxal ak man ndànk ndax yow Moussa la gën te maa gën Firawna te muusaa li muy baax baax bi muy wax ak Firawna li muy bon bon suñu borom da ko waxal ak moom xawlan lay nan lu wax ju nooy. na wax ji tey bul ko ki motax sax bi ko yalla musa di waxe mom da ko ne sa borom dal moy rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma sun borom subhanahu wa taala dal mom mom asaman mom mom suuf mom mom li ci digeunte bi kon nak legi même bu ko directement nako mom yow it li ci diggante mom jeexal ne wax comme mom mom asaman si mom suuf mom moom li ci digeunte bi rek dugalale na firaw na firaw na ko kar moy koko motax dafa dema dema dem ba moom ne mooy mooy mooy borom bi mooy yàlla tey bis boo fi wootee beneen yàlla bu bokkul ak man danaa la tëj da nga bokk ci ñi may tëj te léegi dama bëgg nga wan ma say jaloore ci la ko yonent yàlla Moussa dóoral yat wi nga xam ne moom la yoroon bi mu ko dóoral rek yat wi dafa doon jaan di balaw balay ba firaw na keroog tiit ne tiitaange joo xam ne man nañ la wax ne la 40 fois dugg na ko ci waram wi te bu njëkk moom firaw na wér na wérin woo xam ne quarante jours lay toog dooru dugg ci wanag nga ne ñeen fukki fan dana ko am te du soxla dara ci wanag ndax wér gi yaram firaw na du sëqat du soj du siburu dara du ko metti wér pelag ñeen fukki fan lay am door dem ci salle de waa keroog bi ko Moussa dóorale yat wi mu ko jaan dugg na fa ñeen fukki yoon ci bis bi ndax tiit waa xëmaan moo ko alak moo tax bu la yàlla boolewut ak àndandoo bu baax loo baax baax rek mën na laa tarxiisal ndax xëmaan moo ko ne lii du dara lii ay njabar kese la doo daara mu dugal loxoom moom euh, Moussa ci poqtaan bi génne ko mu weex tàll ah léegi nag ñu ne ko nag léegi danoo bëgg nga libéré waa banu Israël yi ñi ngay fontoo li nga leen di def lu nekk nga def leen ko dana bëgg nga libéré leen lii nag ñuy wax ni jàngeewuñ ko fenn fudul ci alquranul karim muy wax yàlla sunu borom subhanahu wa taala alquranul karim sunu borom moo koy nettali yonante bi salallahu taala wa sallam ndax yonante bi salallahu taala wa sallam ak Moussa sorante nañ ci lu toll ñaari junni at ñoom ñaar ñaari junni at yoo xam ne Moussa ñëw na ko ba dem yonante bi yonante bi salallahu taala wa sallam door a jamono ndax yonente bi sallallahu taala ak Iisaa Iisaa mi nga xam ne moom mujj a wàcc yonente bi sallallahu sallam door cee topp Iisaa ak yonente bi juróom benn téeméeri at yu manqué ñeent rawante nañ ko juróomi téeméeri at ak juróom ñeent fukk ak ñeent yonente isa am na ko ba dem yonente bi sallallahu sallam dooree gane jamono te Iisaa sore naak Muusaa ñoom ñooñu ndax ay yuusufaak yooyu ay daawudaak yooyu yëpp waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ne mu diggante mag eh, Serigne Touba Xaadim Rasul fi ne toll na ci junniy at ak ñaari téeméer ak juróom-ñaari fukk Sëñ Touba doo jamono. nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jógee Màkka jëm Madina ñu tudd ko atum gàddaay gi ba mu jógee jëm Madina ak bi Sëñ Touba Xaadim ganee jamono. mu ngi toll ci junni at ak ñaari téeméer juróom-ñaar fukk nga ne ñetti téeméer yi fanweeri rek fanweeri moo ko manqué junni at ak ñetti téeméer sëñ Tuubaa door a jamono. nga ne kon àdduna yàgg na dafa ne boo xoolee ki nga ne moo di euh, Isa bi mu juddoo ak léegi rek mu ngi toll ci ñaari junni at ak ñaar fukk ak ñaar muy deux mille vingt deux deux mille vingt deux ndax un ba mu ngi tàmbali ci ba Isa juddoo gane jamono ñu wax un an deux trois ba de mille vingt deux boo ko xoolee muy ñaari junni at ak ñaar fukk ak ñaar ndax mooy liir bi nga xam ne moo judd rek di wax judd di wax ndax Isa Mariama mi yaayam amul woon borom kër moo tax sunu borom subhaanahu wa taala boo jàngee alxuraanul karim ci jaaloori sunu borom subhaanahu wa yi muy leer li Sëñ Tuubaa di wax naan ci la waxante yaak tonton tey ca la ne ci alquranul karim alhamdulil haqil mubin man kaw na xoo li ya yabin alal kitaabi mustabin mahajami niami kooku mooy jës bul xulóob ci lay leeral lu bari fi ne sunu borom subhaanahu wa taala bind na koo xam ne amut ndey amut baay muy maam sunu aadama maam aadama amut ndey amut baay sunu borom subhaanahu wa taala dellu bindaat koo xam ne amna bay baay temu nday muy mam sunu hawa fi na awa ay bayam ba noppi wëlbati ko doon jëkkëram xolal ma na awa ñu ngi ko defee Adamah. ci faruk mam adama motax euh adama ban la awa nak fekk na bobu ban bi déclencher ba don yaram motax jigen goor góor mën naa fukki fan ak juróom yo xane do sangu te du ko dara ñetti fan ndax bu kunu qualité ki ban la kii boobu fekk na deret ji circulé moo tax ci faar ko maam sunu aadama gu càmmoñ leen bindee Hawa ndax booba adama moo ñaan tullanti bi sunu borom subhaanahu wa taala dogalee mu defal ko Hawa nag mu wëlbati ko doon soxnaam mu ne leen nag yéen ñi yaa aadamu anta wa saw jukal janata yow yaa sa soxna moom dugg leen àjjana ngeen ne ngeen lekk lu leen neex fa kulaa si surtout wala tax rabaa si sajara mboolem meññete àjjana yaa ngoog waa nag bu leen jege garab gii genn garab rek loolu yàlla tere ci biir àjjana ne bu leen ko jege waaye yi ci si moom lekk leen orange yeeg pomme yeeg banaana yeeg mango yeeg mandre yeeg sump ak lu ngeen soxla rek mu noonu waaye gii moom bu leen ko jege léegi nag ba loolu amee nag ndeysaan kii nga xam ne mooy euh, iblis moom it affaire bi naqari na ko ndax comme iblis moom dañ ko xaala faxruj mi naa fay nekk rajim génnal génnal tamit yow iblis iblis mer daal di duggaat àjjana daal ne waaye yéen aadama yow yaag sa soxna sii hal sa ala sajaratil xuldi wa mulkin laa yablaa yéen ndax duma leen expliquer garab gii leen yàlla yàllay tere xam nga lu tax leen suñu borom di leen ko tere ñu ne ko déedéet mu ne leen gis nga bu ngeen ci lekkee ay malaaka ngeen di doon aw tàkkoona malaaka ni ñaari malaaka ngeen di doon yaag sa sa borom kër bii ay malaaka ngeen di doon ba noppi da ngeen ni sax aljana duutu len duutu len genn duutu len de ndax yalla seen borom mi tax mu len tera garab gi ndaysan ah ba nga xamee ne amna ci la ko sunu nako iblis li nga wax deug sunu borom subhanahu wa taala neena wa khasahuma ini lakuma la mina naasin iblis na len yéen xam man dama len di labire rek su ngeen lekkee baxna su ngeen likul xam man mom dama len di labire dong waiman man mom ma ngi ci limane ah ba waxee loolu nag xawaa dem dagg daal di lekk maam soro xawaa nag ba mu daggee moo fexe ba aadama dagg ndax jigéen ñi yàgg naa dugal borom këram fi ne nii bariwaane sax jigéen ci màggal yi cambal càmbal yi léeg-léeg rek nga gis ci jigéen ju ànd ak jëkkëram dem ba mu yàgg mu a benn waaye xoolal ni ma jógee xoolal ni ma jógee su ko dee nag waaj na ko mais soxna si man jógiwu ma la danoo rombante rek nga ne dama laa jóge ma ne yaa ma jóge kay léegi jëkkër ji daal di ciy dugg rek ndeysaan xeex ba daal di tàmbali la muy mujjee moom soxna sa du sot du def dara yuuxu doo nga lay wuy wuy wuy maa ngi koy gaañ wuy ñëw leen dimbali ko te gis nga moo waral xeex bi te yàlla xam na ne boobu de boobu dañ koo romb rek waaye sax yàlla xam ne jotee su koo def dara dara dara dara. waaw yéen a ngi ci seen rajo Baol Média 88 point 5 88 628 19 05 nag mooy numéro bi ngir nga mën a dugg si incha su ko defee ndeysaan xoolal loolu rek bi nga xamee ne loolu am na nag maam sunu. Euh, adama dari di dagg moom bam lekk dag mu dagg daggee lekk ci sunu borom subhanahu wa taala dal li wo wa nadahuma nisan rabahuma seen borom dal li wo na len kaay leen hakuma xanala si sajara ndax yeen ñaar ñi aar ma yaag sa borom sa soxna ci téere ma leen garab gi ndaysan ñu ne ko khalu rabbana salamna anfusana wa ilam lam lana wa tarhamna lanakuna minal al sunu borom sunu borom sunu bop lan togn ndax àjjana joo xam ne amul fanaan biti fu la neex ngay fanaan loolu la neex ngay lekk amul rafle amul dara yow li nga doo rafle doo tëdd biti dégg nga maam doo doo xiif doo mar doo def dara sunu borom subhanahu wa taala tey jii ñu nar ko génn dem àdduna noonu sunu bopp lan tontoo ñu la dimbali ñu rek sunu borom boo nu jéggalut dana nu bokk ci way torox yi sunu borom ne leen kon baax na. fataaba alay jéggalees na leen waa ihbitoo min ha jamian wàcc leen génn leen ñu daal génn génn àjjana saan maam sunu aadama ak awa ak iblis moo tax iblis ak maam aadama ñoo fi ñëwandoo ak ak ak hawa noo ñëwandoo adduna mu ne ihbitoo min ha jamian yéen ñëpp wàcc wàcc leen wàcc leen adduna léegi nag fay maa yaatee na ko min hudan fa man tabee hudaa falaa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun danaa fa yabal ay yonente nu ñëw wax ak yéen ndax doomu aadama dafa mën a fàtte te riir da nga koy wax léegi waar ko mu leer ko nañ bu suba mu génnaat ci gisaat beneen ca góor goo xam ne ko màggat la tama tamana fo mu daan ah lii daal bu wàññoon dara bàyyi diw mii ko def wala maam diw du ko def déedéet iblis a bari doole suñu borom ne leen nag léegi leen am na gis nga inna seytaane lakuma aduwwun mubiin seytaane moom yéen ñaar ñi mën a mën a yéen noonam yéen rek la bañ ndax adama ak hawa biñ datan sunu borom subhanahu wa ta'ala sak datan sak maam sunu adama iblis fu ko neex la dan dem da daan dugg aljana dem fu ko neex di lembe and ak malaaka yi fu ko neex dem liko dal lepp maam sunu adama ko ko tek ndax dañ ko ne dañ ne ajru li adama sajudu ila iblis aba wastakbara wa kana min kafirin sun borom neena dama sujud lo malaaka yi rek malaaka yep sujud iblis lank taxaw di setan ñu ko wayo iblis lola dal mo daal di reuy rëy lu na man dal dara jotuma man duma sujjootal ko xana mako gën ma gën adam mi si mako gën sunu borom nako kon wàccal gënal àdduna xala gën la jël fa xala faqruñ mi na fene karajim gënal lolé comme yéen tax mu am mu dal ko nak iblis do ngeen bañ ndax nos gi ngeen nekkon motax tax ngeen génn ci dem leen àdduna ta moy tonte nak iblis motax du xaritok waj baax mukk mukk mukk mukk lo gëna baax mu gën la bañ bo demee ba bon nak mu bëgg la wa bu la yele be ba nga don xottu saako nak mu saani la su ko defee ngay doolu dellu gannaaw fekk ba passé na kon no ngi santat yalla sunu borom subhanahu wa taala bu baax di ñaan yalla mi borom jamm yalla na nu boole jammal bu baaxa baax may nu fa nu gudd wand wir wér muccu mucc muccu le leen te mu dinu musul ci mbolé musibe ak balaay kon dal yeen ci seen émission bi nga xam moy jataa jataayab euh, diiné inshallah su ko def fess nañ yene diko di ko ànd euh, borom xam-xam yoo xam ne danañ fas yéene léeg-léegaa di ko ànd ñoom ci émission bi su ko defee euh, am na laaj ak tontu ci wàllu diine comme nañ koy waxee rek lu ci bari bari fi ne tey loolu moom dafa am bu baax iblis moom dara am lëmbut ba léegi nii lépp loo xam ne suñu borom dogal mu jëm ci mbirum iblis jërul publicité day dox normal bu baax a baax waaye bu fekkee lu jëm ci yàlla suñu borom ci wa taala dégg la de fi ne ba ci waaraatekat yi sax. ñu ci bare bare bare bare bare bari ku la ci dàq duur dàq la ci wax wax yu garaaw ak garaaw ak garaaw moo lay yëpp xaalis waaye ki nga xam ne moom original lay wax doo doo am xaalis yi ëllëg lay am waa nag original yi baax na loolu ndax loo jayaate jayaate ak loo wax wax ju du dëgg loo bari le bari le bari le leen rek moo ci am da am xaalis tabax ci kër jënd ci oto tàkk ci ay jabar waa dee ba ko fi te kat doomu aadama na xam ne gannaaw dee noos doon ko ci topp gannaaw dee li wax ji bari bari nit ñi moom yuuxu yi mi ngi aju ci mi ngi tàmbale ci départ bi rek waaye buñ xësee sëlmu day mel na ñëpp la yàllay lekkuloo te buñ xësee añ danan réer buñ réeree ndékkile moom waxtaanu daal day tàmbali yow mi dee nag boo bàyyee jabar perte nga ndax jabar ji moom am na ñu bari ñoo xam ne xamal ne buy muuru sax ñu bari bari buñ koy solo lañ koy takkaale ca solal ba ndax solal sa soxna wala ñuy jaal am njaal ñu war ko sànni ci layu nga joxe ambulon ambulon ba nga joxe paquet ca loo xam ne danga ko koy boqal nga xam ne du dem ci layu bi fi ñuy jaale su noppee bu ko teppee bu xoolee kayit yi mu mu mu doon yu bees tàq dana xam ne yow mii jaaloo kese am na leneen lu xew léegi su ko defee loola mooy ngoro léeg-léeg mu dem këram di yónnee ndànk ndànk ay saabook omook nangam nangam def noona bu mu rëy rek mu takk ko murai nag ñeenti fukki fan dong la muuraay ñenti mil fukki fan la yagut ñenti weeri fukki fan nak ba ko juróomil ñu fàtte la yow mi dee kenn dutu la ñaanal xana gone yi kay ñoy mag di la ñaanal kon nak fexel ba bu nos yow ngay nos moy nga am transfert fo ndax wii kat ak orange mo a nangam nangam yi ci ci ci compte bo am ding mam ñu la ci wër si xaliss bu retiré te bu fekkee sa compte xawna am dara bo amé soxla koi koy mëna fajj motax Serigne Touba sultan wax na doomu adama juróom rek la alalam yaramam yaxam jëfam roam nee na alal ji moom lum bari bari bari bari bari bari boo fi bàyyi ko ñu ngi fi bàyyi ko moom nee na yaram wi nu mën a toll saxee ko moom nee na yax suuf see ko moom li yàlla soxla nag muy jëf jéeg roog bu jëf jee see lee ñu teral rooga bu jëf ñu toroxal rooga te oto yu rafet yi nga jënd muy kaat kaat ak lu mën doon nga am kilim di ko yi nana na nga xam ne boo wàccee liggéey kenn du la ci duggal auto mom du génn garage bi ndax kilim bé tax refataay auto bo rafet mom kén du ci duggal ak néew la ñëk def moy auto yi gëna a ta koñ bala ni wo woo nga ne mooy bu daan roñ bagage ya, daan roñ euh, mbana yaak dé nga maam bolé ya, mom la mu la ñuy mu ñëw te kër gi it loko tabax tabax tabax tabax tabax minuit bu ko faato du ko fa fekk te yalla de ndax fini ni ko gis bi la sant bi bi la doom aadama yëpp sant bi bi lol moy lan liir bi niw bi liir bi niw bi boy dik doon diw tur booy del do yóbbu tur booy dikk ngi liir bi am fi juroom ben fan ba ko juroom ñaarel nu wat ko sang ko laxas ko lew ko te ko ci karam serign mu noddu ci day jor bi li xam ci nopam chamun bi tudd tour wi ñu rendi xarmi door laa jox aw aw tur ak sa santu baay sa baay kat limi muy sant sant nu moom santam woowu bala nga tay mana jot day fek bis bi dil si rek wala bok tur wi ñew tur wi ak sant wi ñooy bu dem jotee dañ koy defaat tip nga tudda na niw bi motax boy ñew yaangi jaar ba boy delu yaangi jaar ba boy ñew yaangi jaar maternité ba boy delu yaangi jaar margo ba wa bi ngay jaar maternité ba lire bi nga tuddoon ba nga jaar margo ba niw bi nga tuddu te lire bi niw bi mom liir bi sax atane niiw bi ndax liir bi am na yaakaar lu gàtt gàtt ndax mu ngi ngëb ay loxoom xëy na bi muy ñëw te moo xaw a ëpp kàttan waaye niiw bi moom lu mu ponkale ponkale bësër la def mënu dara kon la nga fay fekk mooy la nga transféré foofee ca bàmmeel ba kenn du la fa jëfal dara nag la sëriñ Saalihu Mbàkke nu ko yàlla doolee fayal leeral na de nee na doomu aadama ñaari biir la am biiru boppam biir bàmmeelam sa biir bopp ba mu la yitteel sa biir bàmmeel na la yitteel ndax loo fa difut ñu ne ko amoon ah, na doo ko fekk ak a leer loo fa defut doo ko fa fekk nit ñi nag ñooy bari bari dañuy wax dañ lay yombalal àjjana ba nga xam ne da daal àjjana moom dafa am ko ko moom koo xane ëllëg dangay taxaw rek ñu naa duggal duggal duggal duggal déedéet déedéet àjjana du noonu julli suba la ñuy dekkee yomal xiyaam mboolem doomu aadama yi tisbaar la ñuy dajale mboolem doomu aadama yi ndey ak doom jëkkër ak jabar mag ak rak ndijaay kub jarbaatam maamu kub sëtam sëriñ kub taalibeem ñëppay teew tisbaar tisbaar moom bañ a teew teew bëgg a teew ndax mooy la la yoxuf rendez-vous la waxoon kenn du tardé amul damaa demoon feek dara yàllaa woote ñëpp a wiis su ko defee nag tàkkusaan ñu teg balance yi tàmbalee peese lu baax ak lu bon lu baax ak lu nag bu ñuy peesee amul bul peeseel keek bul peeseel keek déedéet dafa mel ne te jii rek ki yor commande bi moom yàlla la comme taal na ko moom amul arrière amul avance moo ko yor yow ma tub laa sarayru fa maa loo min xuwatin wala naasirin loolu yéeme na su ko defee nga xam ne nee na bu boobaa damay laaj loxo yi. damay tij gi mi ko yow noppil ndax àdduna ba nga fa nekkee wax nga li nga war a wax léegi loxo yow waxal yow ma naxtimu xalaa afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bi maa kaanu yaksiboon nee na loxo yi wax tànk yi seede tànk la yaakaar na lépp lu wax na fekke naa ko wax na dëgg wax dëgg yàlla seede bu mata bu mën a seede la ndax comme li loxo wax fekke na ko mu wax na dëgg te loxooy wax tànk ne wax nga dëgg man fekke naa ko te wax dëgg yàlla bari waa na waaju naan fekk naa ko te fekk dafa jël responsabilité bi rek mais mën a tey jii léeg-léeg nga gis chauffeur bu mbëkk dara ka daan dawal keneen remplace ko ne mana a waaye tànk moom wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la ndax li loxo def ba di ko nett li mën na ko fekk naa ko wax na dëgg loolu moom am doomu aadama bu koy bu koy weddi loxo moom tànk musta dem fu fu tànk téewut kon nag loolu lu leer la timis lañu joxe résultat yi résultat yi bu nu koy joxee amul joxal maas bàyyi galaay amul joxal kumba bàyyi awa déedéet déedéet ku nekk dañu jox sa résultat sans ambolo daal bu la ko joxee nga teppi la nga ca defoon doo nga cay ne amul leneen te ambolo boobu noonu mi mel ne tata yi ngay dugg te tata boo duggee am na billet boo xam ne bu cent franc la da ngay teel a wàcc am na boo xam ne bu cent cinquante ci digg ba la am boo xam ne terminus ngay wàcc waaye gis nga boo daggee bu cent franc bëgg a wàcc bu cent cinquante ba contrôle yi jàpp la da nga xam ne ndekete cent franc ak cent cinquante yemut waaw boo daggee bu 150 bëgg a wàcc terminus ba romb sa 150 yooyu ba pour jëm terminus ban jàpp la xam ne ndekete terminus bokkut ak digg bi te loolu gis nga ko waaw bu fekkee da ngaa dagg sa bu bu terminus bi doo faale contrôle bu yéeg ak bu bàyyi am na gaa ne bu contrôle bi yéegee rek cëpp lay def am na ñoo xam ne bu contrôle bi yéegee seen vidéo sa kaw lay ndax xam nañ ne def nañ affaire. kon nag jub rek am solo moo tax suñu doy di wax naan sabit yaqinee fii xalbin bilaa wajalin xataa ohi baa li xaaka xaqee law sunu borom noo lay ñaan. yàlla nu dëgëral sunu yaakaar ak sunu yéene ba nu sawar a dajeeg yow ba nu sawar a dajeeg yow timis bu ñu joxee résultat yi gee la njégim siraat siraat nag li ko tax a garaaw mooy amul xaarante amul kaay yu baale la ak léegi déedéet guddi la lëndëm këriis nga ne ku teg sa tànk mi mën ne tijji poto boo xam ne dañ ko samp Touba ak beneen poto boo xam ne dañ ko samp dakaar mu doon ak ligne ñu takk ligne gi nga départ Dakar jëm si Touba boo daanoo diggante Bambey ak yow yoon yi moom foo fi wàcc rek doo yëgaat ndax ak fiil la goo xam ne da teg sa tànk ca pér si Touba am na ñoo xam day teg seen tànk rek a yegg am ñoo xam day teg seen tànk tiit ba jàpp na danañ xalangu doo a yegg si am ñoo xam ne dañuy dem ba mu yàgg suñu borom da dama ne leen xusooxu foqulooxu su ma jaxima salooxu suma fii silsilatin sa sapona siraan faslu ko jàpp leen ñu jàpp yeew njoñ ko comme ni ni def ganaar gu ñuy waajaree ni noonu ñaari laaf yi noonu ñu koy ràbbalee noonu lañ koy def ñaari loxo rek takk ko sànni ko ci sawara war a loolu daa gëmuloon yàlla te yàlla buy def loolu kenn mënu ci mënalu ko dara kenn mënalu ko dara moo tax suñu borom wax ci ayatul kursi naa man sal si yasfon hindoo ila nii ana kan mooy ki nga da ko kon boo gisee nuy jokk di wutub sëriñ mooy mu di la digal fii lu baax di la teral lu bon boo léegi yàlla fay ko fay la waaye su fekkee ne da lay lu baax te doo ko def boo léegi yàlla fay la ba maanaam bu fekkee sëriñ bi day digle lu baax te du ko def boo yàlla fay ki daan def bàkki ko defut fekkee moom da lay digal ba noppi te doo ko def moom mu di ko def boo léegi yàlla fay ko balaa kon yàlla day fay rek ëllëg yomal xiyam waaye niwul ma may leen ma fay leen lu wax kon nag loolu war nañ ciy gën a yeete bu baax a baax. buñ ci daan yeete nit ñi yeewu dañuy xam ne ah, ah ndekete lii daal wax dëgg yàlla bu bu yàlla doon courant sëriñ si ñooy chargeur yi taalibe yi ñooy portable yi waa nag euh, ca dëgg-dëgg chargeur nag loo jaay-jaayu ndaanaan te roofewoo ci courant doo chargé dara da ngay roofee ci courant bi door a chargé portable yi waaye yow toppoo yàlla ba noppi wëlbatiku ne da nga chargé benn portable da ngaa yow da ngay da ngay widdi yi bari na ci portable yoo xam ne nag xam nañ loolu waaye nag comme dan nga koo nekkal mu nekkal ak ngeen boo ko nekk rek ku ne ragalante gannaaw waaye euh, daje réccu rek kon li am solo mooy booy roofe roofeel ci chargeur bu roofe ca courant ba mu lay branche le di jëlee ca courant ba di la jox ngay chargé sa portable fees bari na ci yoo xam ne nag amunu batterie mooy ñoo ñoo xam ne duñ topp ndigal duñ bàyyi tere moom daal lu leen def bu ñu waxee ñu ne sëriñ bi amul moroom wax nga dëgg de amul moroom waaye yow day gisuma la mbaaw ndax lu ko waral mooy doo jar dara sëñ Tuubaa daal wax ne kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu waay def boppam. billaahi wala wa talaay kenn deful kenn dara kenn deful dara lu waay def boppam daan man de dañ maa woote woote naa kuy si ku ne wàcc nga wàcc naa yàllaa ca des dañ maa woote naa kuy suur ku ne wàcc naa yaa ca des boo ca desee nag du baax loolu rek mooy wax ji loolu nag bu fekkoon waxkat yëpp danañ faral di waxee noonu njiit yi di waxee noonu ju jubbantee noonu mbir yi dana gën a jub danañ gën a xam ne ndekete caaxaan moom baaxul bu màggalee ba tàkku saan waroon nañ basang yi ñu lal ko ci ëtt bi kër gune génne lu say basang jigéen ñi toog ca gannaaw góor ñi toog ca kanam sëriñ bi toog ci digg bi wax ak ñëpp na leen nag na ngeen góor góorlu te xam ni nu fi andi te xam ne man mii kat damay seen njiit waa na ñu xam ne lii leen war doo nga ma war li ma war a leen war ku ci defut lu baax waxoo ko boo liggéey yaag yàlla su ma defut lu baax waxuma ko boo liggéey maag yàlla soññ la ba nga xam ne yow bu ëllëgee boo dajee jabari jàmbur ju ju ju jooroon jéem euh, a corrompe sax da naa ah, sëñ bi waxoon na ma ko waaye bu fekkee yow boo dikkee rek ñu ne la tabaarkalla lépp baax na a ah, ba ba tey rek da ngay daal di jàpp ne yow kon lu leen neex am na ci gaa yu bari bari yoo xam ne lu leen neex def fi nii lu leen neex lu leen neex def te jàpp na ne boo liggéey te fekk booba oto bi daal yaakaar naa lamp yi ci gannaaw moom jëriñu ko dara da ciy wan nag oto yi ci ginnaaw pour bu làmp yi xonq yi tàkkee nga xam na oto baa ngi egsi cib duudaan wala cim pax mu dimbali la yéen nga def noonu sa morom def noonu waa lumière yi daal moo lay jariñ dara kon nag ak jub ak jubal mooy jariñe moo tax sëñ Mudu Mustafaa Mbàkke daal wax ne sëñ Tuubaa sama baay day doy na ndam waaye nag jub laa doy loo jub jubal moo tax sëriñ Tuubaa mu sol dem na ci géej gi ba ñëw xeexul xeexluwut musta xeexloo kenn musta defloo kenn lenn lu loolu de tegu toog tegu ci dogal bi suñu borom bi subhanahu wa taala rek xam ne daal yàlla suñu borom moo moom bakkan bi heure bu ko ko sàmmalee bu soobee yàlla dana mën a muñ natt yi lii la digi woon def na ko ba ñëw ci jàmm mbàkke wàcc na bind nay téere wax na ñu dégg jëf na nañu gis léegi nag li gis nag comme neex nga topp ci maa yomb yi rek di yombal di dem rek waa di riicu dongu la ndax xam naa li ma mën a leer mooy koo ci mën a doon boo nee xuntum yàlla directeur armée rek waaye andil leen ma ko ci kër gi sax man da gisaguma ko maanaam andil leen ma ko ci kër gi mu ma dugal ko ci saal bi xaw a ñaanal ko déedéet ko fekk armée rek ngay dégg nga ñu bare bari sax bala ñëw dikk daa ko waajal ko teg ko ca kanam ba jullee ko dong des nga xam ne daanaka sax danañ toogaat 15 minutes nga doree si nga xam ne da ngay essayé kabar mm, sëlmal daal di delluwaat kër ga da waaw danañ ko euh, daal am na ñoo xam sax day tibb suuf jox ñi ànd ak néew bu mu dem yóbbaale ko du ko defee bu bisu saa nu door dem am na ñoo xam ne nag moom danañ def seen kéemtalaay kattan dem waa dugg ci pax mi nangu ko sax doo ko xalaat moom xanaa moom daal alhamdulilah rabbil alamin waaye daal yàlla daal moo di yàlla yal na yàlla boole jéggal te jubal nu te jàppale nu seen bokk la nag seen xarit Mass fii ci rajo Baol Média rajo bi nga xam ne mooy rajo askan wi. wax dëgg yàlla di doon rajo boo xam ne euh, ki ko taxawal daal lim ci jublu mooy fas yéene liggéeyal yàlla suñu borom subhanahu wa taala fas yéene liggéeyal diine ji fas yéene cee jariñu tey ak ëllëg yàlla ko ci yàlla jàppale te jàppale mboolem ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci ndeysaan rajo bi mu di góor ñi muy jigéen ñi yàlla nu yàlla boppam suñu borom noo ngi lay ñaan ci sa may yu rëy yi yàlla na nga fi def xéwal gun a gàññi surtout ci xéwal gun a gàññi saa yi rek baatin xam ne danañ ci jariñu tey jariñu ci ëllëg ba nga xam ne bépp wax buñ ciy wax rek ñu di ko wax te yàlla rek tax waa duñ ca jay wayaate tey duñ ca wax lenn loo xam ne di nga maam suñ bopp a tax wala suñ bakkan a tax lépp lu luñ ci wax rek dañ koy wax ngir yeete ngir xamunu kañ la xamunu fan la xamunu nan la te déegi moom saa yu moo rek gën koo jege ndeysaan ndax koo xam ne juróom-ñeent nga am boo sëlmoo juróom-ñett ngay desee boo delloo mu desee juróom-ñaar boo sël mu desee juróom-benn te xamoo yow ñaata nga am te kondaana bi moom da ngaa judd rek ñu joxaale la ko te saa yoo xëyee jël ca dara kon comme des saa su ne jeex na kon nag suñu borom si wa taala lépp lu ñuy wax rek walaa yuhituuna bi say min ilmihi illaa maa saa comme xam-xam moom doo ci joxe lu laa la neex li nga nu ci joxo kus néew ak mu bari suñu borom si wa noo ngi ñaan rabbi sitni hilman yàlla na nga dolli xam-xam bi dañ koy jariñu ci jariñ mboolem taalibe yi di ci jariñ mboolem jurit yi jameewul muslimina wala muslimaat yi di sant bu baax a baax nag sunu technicien waa di sant sëñ Ibrahima mi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo moom ndeysaan di sunu xarit di sunu lépp ndeysaan euh, di ñaan yàlla mi borom jàmm yàlla nu boole jàmmal kon yéen a ngi woon ci rajo Bawol Média 88 point 5 ndeysaan di rajo boo xam ne rajo askan wi da fépp fu waaye mën a nekk rek na koy bàyyi xel bu baax a baax moom rajo Bawol Média téléphone bi nag 88 la 628 19 05 ndéem soob na yàlla sunu borom ca kaw ca kanam incha allah. Cheikh Fallou Mbacké jël na ndam la. bayu alaaji baara xadimul mustafa maa ko way maa ngi way fadilaan ak basiiroo Seex Fallu Mbàkke jël na ndam la sëñ Faliloo waaju way te wayoo waaw jërëjëf kon xam naa ni eh, ñetti question yi nga xam ne rek moom lañ bëgg tontu ci maanaam wàllu laaj yi eh, xam nga comme niñ koy faral di waxee saa su ne maanaam eh, borom kër boo xam ne dafa yor li nga xam ne moo di ñaari soxna waa nag sunu borom subhaanahu wa taala dogal bi mu yoree ñaari soxna léegi nag ñoom ñaar ñëpp ñi ngi ci biir dëkk bi nee na kenn kii moom ñaareel bi sëy siigul waaye nag aaw bi moom mi ci kër gi léegi muy laaj moom ah, ndax dafa war di def ñaari fan fii ñaari fan fee maanaam ci wàllu ay kii ak ay moom euh, muy soxna su sëy si ak su sëy seegul loolu moom aada nag euh, jigéen ñi moom ak yenn mag ñi danañ waral danañ faral di wax naan euh, ku sëyeegul du amok ay waaye nag loolu du diine diine dëgg moom mooy soxna moom buñ la ko xësee may rek maanaam moo xam tey tey tey lañ la ko ma ca jàkk ci sax du tee bu dil ak ayam mën na ko daal di jël kon nag euh, ki sëy si ak ki sëy sigul ñoom ñaar ñëpp ñoo yam ab àtte ci ki nga xam ne mooy borom kër gi ndax ñaar ñëpp yaa di seen borom kër ñaar ñëpp it say soxna lañ nim doone say soxna nga doon seen borom kër noonu lañ tolloo ci lépp bu dee beneen dëkk la boo xam ne nag du dëkk bi nga xam ne ci la borom kër ba dëkk moom bu boobaa mooy xool nu mu ko bëggee maanaam daal bu nekkee fii ba mu neex ko rek mu daan waat jungeet dem fële fa ca des su ko dee lu mu fa amit ba tey noonu la maanaam daal nga xam ne bu ko neexee am fii weer bu demee fële am fa ay fukki fan fa fa a am daal lu ko jotam may mu am ko foofa waaye bu dee benn dëkk la nag boo xam ne ñoom ñoo fa bokk dëkk ci biir dëkk ba lum ñàkk sëy séegul ñàkk sëy si du tee day jël fee ñaari fan jël fee ñaari fan ku aay daal mu jox la ñaari fan ba keroog soxna sa di sëy si su ko defee it ñu baree bari bari ci wàllu ayit jàpp nañ ni euh, jigéen bu feebaree daal du aayee dangay gis góor goo xam ne day yor ñaari soxna maanaam euh, kii sibbiru wala dara dal ko tuuti rek maanaam mu daal di jàpp moom kon ñàkk wér googu day tax mu bañ a aaye maanaam soxna moom su fekkee ne suñu borom dogal la ay ay muy ay ay maanaam euh, li nga xam ne moo di euh, feebar du tee moom ak ayam kon nag ki nga xam ne feebarul bu jëlee ñaari fanam ka feebar day jël ñaari fanam moo xam da nga fay fanaan di ko may ndox mu naan moo xam da ngay waxtaan ak moom moom moo xam da nga koy bësal boppam moo xam da nga koy bësali tànkam moo xam dangay ngay moom moo xam da ngay waxtaan ak moom moo xam dangay ngay tëdd nelaw loo mën a def daal du tee ñaari fanam moom fa ngay fanaan ndax loolu sax moo gën a yell ci diine ndax nit ki nga xam ne dafa feebar ndeysaan nga ne ci wetam di waxtaan ak moom di kafak moom ba ayam jeex nga door dem feneen moo gën waaye nag jigéen euh, euh, maanaam doon sa soxna euh, am ñaari fana yom ko aaye nga ne ko tongaas dem fanaani feneen fa des loolu mën naa sax far yokk feebar ba ndax it la waral mooy moom moom ay fanam te leer na ko yow li tax fanaanoo fi tey mooy ñàkk wér gi kon ak ay ajiwul ci wér kese. kon daal gépp góor goo xam ne yor na ñaari soxna ba ñett ba ñeent soxna su ne bu aayee lum feebar feebar fa ngay fanaan soo ko def soo ko deful na xanaa defee ko neneen nu la neex amal ko ko àq joo xam ne bu la ko baalut boo liggéey da ko layoo beneen bi ci topp mooy. dafa amit euh, ñu bare bare ñoo xam ne bu fekkee ne dañoo yor ay soxna léegi euh, nga aaye ci aaw bi ñaari fan aaye ci ñaareel bi ñaari fan yàlla dogal nag ngay tukki mel dem ci benn dëkk boo xam ne danga fay am ñaari fan léegi bi nga aaye ci aaw bi benn fan ci ëllëg sa nga daal waran faa aayewaat nga daal di dem lu mel ni ki dakaar wala feneen ba ngay dem nag euh, ci ayuk aaw bi nga déparé ndax aaye nga fa benn fan mu desoon benn nga daal di continuer Dakar. ba nga demee dakaar nag am fa ñaari fan kon léegi a moom perte na benn fan ñaareel bi perte na benn fan su ko defee boo egsee ci euh, si ñaareel bi ngay continuer benn fanam boobee mu desee su ko defee soo mattee nga doon continuer waat ca la nga xam ne mooy aaw ba mi mën a daal samedi ak dimanche aaw bee ko aawe woon léegi samedi fa nga fanaan dimanche nga dem dakaar am fa dimanche ak alterné alterné kon alterné ñaareel bi la woon léegi dimanche dimanche yi aaw woon kon léegi talaataa ñaareel bi fanaanee foofu talaata ca ñaareel ba àllarba yaa ngi jëmaat ca aaw ba ak ay kenn du ko arrière kenn du ko fay maanaam daal nga xam ne danga nga naan euh, kon kër kee benn fan la dese woon damay ñibbi si mottali ko déedéet amul mottali léegi comme fanaan nga ko dakaar rek kooku perte la na ko léegi boo fa amee ñaari fan rek kooka ba tey ñaaral ba perte na benn fanam su fekkee da ngaa dem dakaar nag am fa ñetti fan waaw kay su fekkee am nga fa ñetti fan aaw bi moom moom moo man samedi ak dimanche dimanche nga dem Dakar am fa eh, dimanche altine talaata ba boo ñibbisee yaa ngi def directement ca fa nga jóge woon muy aaw ba ba léegi ndax ay gi. que aaw bi perte na benn fanam mais ñaareel bi perte na deux jours lay kon ñetteel bi yaa ngi delluwaat ca aaw ba loolu daal ay tëralin loo xam ne képp ku koy def te mu leer naññi maanaam sa sa mbir dana tegu ca yoon te doo amel kenn àq waaye sama soxna si wérul rek naa fanaani fee ki wér déere déere ko sañ ndax loolu ak ayam la tak ayu jàmbor képp ku koy joxe ku ne mooy jeng te jeng dañuy wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gépp guur goo xam ne dafa jengee noonu maanaam ëllëgee mal xam buy dekkee genn ak wet lay dekkee ñu bare bari euh, ci laajub ñaareel bi dañuy faral di laaj ba'da salaam ak xabla salaam ba'da salaam nag bari na ñuy wax ba'da salaam ba'da salaam xabla salaam xabla salaam siiw na waa xamul luy waral ba'da salaam ak luy waral xabla salaam ba'da salaam nag li koy waral mooy koo xam ne dafa yokk ak julleem yokk sa julli nag mooy mën a tëj ji ngay julli ba mu yàgg nga ne tis yoo xam nga tis yoo tis yoo googu nga wax noonu taatomb la taatomb la muy euh, taatomb ak euh, yaa akuk siin ak yaa gu ànd akuk waaw muy tiis yoo tiis yoo araf yooyu nga dolli dafa bari ndax da ngaa bool yi ak taa akuk yaa akuk siin ak euh, yaa gu ànd akuk waaw muy daanaka juróom benni araf ba juróom boo ko yokkee ci julli gi loolu li la waraloon mooy boo jullee ba julli gi mat da ngay taaye sëlmal sujjóot ak ñaari sujjóot mu dindi tiis yoo gi nga def léegi su fekkee nit ba tey it da ngay julli am ñaari ay far fàtte ndeysaan ba jóg taxaw bi nga jógee taxaw moo xam yi limaan nga ñu ne la subhanallah nga daal di yeggaat suuf boo toogaatee euh, ci toogaay boobu nga toog maanaam bu baay ba de salaam war na la mooy da dangaa yokk ndax lan la dangaa jug taxaw bañ na noonu la nga dellu toogaat kon jug toogaat boobu nga def noonu yokk nga julli gi bu boobaa moom dangay ngay julli ba julli gi mat nga taaya sëlmal daal di sujootaat ñaari sujoor mu dindi eh, jug taxaw ga nga jógoon taxaw te waroo war a jug taxaw su fekkee nag bii nga jógee taxaw maanaam bi nga amee ñaar rakaa war na toog taaya dangaa ngaa taxaw ba sa loxo yeeg sa wóom yi lépp yëkkatiku ñu ne la subhaanallaa nga continuer julli gi ah bañ a toogaat daal continuer julli gi boobaa kon dangay continuer amul problème waaye nag da ngay julli ba julli gi mat nga daal di sujjoot xabla salaam xabla nag mooy euh, julli nga ba julli gi mat da ngay toog taaya boo taayee ba sëlmal dese la doo sëlmal da ngay sujjootaat ñaari sujjoot fi nga toog sujjootaat ñaari sujjoot fi nga toog muy xabla salaam nga taayee sëlmal kon xabla day ràmpali ba noppi door a sëlmal baxda nag da ngay fecci sëlmal ba noppi door a ba baxda baxda nag saa yu ko déggee mooy ku def ci jullig loo ci war a def kokoy sujjot bada wa nak khabla moy lo waran def ci julli gi te defoko te khabla nak buku tek nak nga warana tari fatia fatte ko koku mum ah, rakka ba day yaqku da ngay indi benen rakka so no nak dooru sujjot baada salam fe ken te ji da nga tari fatia ah, comme mi men ngay julli timis warna tari fatia ca kaw far fatte ko ba tari ko ndank legi nga fatte ko rek dal koy baamu wat bu ba da ngay sujjot baada salam ndax ñaari fatia yokula ñaari faate yokku la yooyu daal euh, incha allah comme ni ñu ko faral di wax rek na nañ yéene daal liggéeyal euh, diine lislaam euh, ci rajo Bawol Média Ndeye bi yàlla suñu borom incha allah rek di ko ànd ak bokk yi ci 88 628 19 05 dem soob na yàlla suñu borom euh, fas nañu yéen di ko ànd ak Serigne Sidina Diop Bichri xam naa moom incha allah dana faral di yor ay question yu xaw a bari tuuti su ko defee lépp lu waay euh, bëgg a laaj ci diineem rek incha allah ñu mën cee laabirante bu baax a baax ndax jëwriñ ji li ko ñor rek mooy liggéeyal diine l'islam rajo bi nag yàlla na ko suñu borom gën a taxaw taxaw techniciens yi taxaw mboolem ku yëngu ci rajo bi rek ba nga xam ne danañ deme dem ba télé yeeg mbolam luñu soxla ci euh, walu jumtu jumtukaay yu jot la rek manam sunu borom dimbali lu ci ba nu ko niñ ko bëggé ñu ko raw te yalla sun borom it saafaraal nu jangoro xol yi ak euh, jangoro yaram yi di kontal bu baaxa baax ba nak ci euh bokk yi ak euh, dekkandu yi ak mbolam ñi nga ñi ngi diglu seen rajo bawol media 88.5 kon xam naa na bu baaxa a baax di ñaan yalla yalla ñu ko yagg fekk lool te di tal yalla musul nu arnu barke Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul moo ma may lii ma ma gërëm